asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar. Cheikh Omar ma Diop seen xarit moo leen di jox. rendez-vous ci seen émission néegu sëy néegu sëy di émission boo xamante ne dinañ ci essayer di waxtaanee toutes les grandes questions qui interpellent la société sénégalaise moo xam sénégal yi nekk ci biir Sénégal la moo xam sénégalais yi nekk ci diaspora. Daanactu point com. ci vendredi soir bu nekk incha allah ñu dikk ak yéen waxtaan ak yéen diisoo ak yéen kon rendez-vous bi mu ngi noonu ci sunuactu point com asalaamaaleykum wa rahmatullah